اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام waa jërë ngeen jëf yéen waa Mbour TV tout d'abord ma leen di Euh, di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw tey seet si madame la députée Sira Ndiaye fii ci tefes ngeen may ma rek ma profitoo ci occasion bi baalu àq sénégalaises yi ak sénégalais yi mais baalu àq surtout waa département de Mbour ak commune Mbour di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq di leen baal di ñaan ñu fekke ko at yu baree bari waaw di wax ne Mbour moom wàccuñu ko comme ni ko xale yi di waxee sunu xëyee bu ñu gontoo lu mu guddi guddi sunu lépp ñu ngi koy tënk ci mbuur parce que ñun doomi mbuur lañu yàlla na daf ñoo xiir nag ñu dugg ci arène politique bi di ci dox suñu wàll di ci bay suñu waar euh, ñun nag ku ne xam na ne dañoo sol benn mbubb euh, ñuy ay député nekk fële ci assemblée nationale muy péncum ndawum réew mi ku wax assemblée nationale nag ci mission bi ci gën a fës gën a rëy ñëpp gën ko ràññee xam nañ ne mooy ki teewal askan wi fële ca pencum ndawum réew mi ba tax na ci mission boobu ñu nekk ñu ngi ciy joytul waa Mbour mais ñu ngi ciy joytul askanu Sénégal yëpp parce que assemblée nationale Sénégal ko moom askan wi ñoo ko moom Mbour nag moo ci am cër bu rëy parce que doomam lañu jël tabb ko assemble nationale mu nekk fa député ñu ngi suñu ñaareelu mandat première mandat bi yàlla def na def nañ ko si jàmm ak salaam taxawa fa nag taxawaay bu rafet boo xam ne lépp nag si turu mbuur ci tiitaru Mbour la deuxième mandat bi ñu entamé aussi am nañ ci taxawaay bu am solo mooy ñu ngi jooytul mbuur ñu ngi taxawal mbuur euh, député nag du tabax ay tali du construire ay salle de classe dafay vote loi jooytul askan wi ñaxtul ko xool li nga xam ne mooy jafe-jafe yi ak fi nga xam ne mooy méttee ci askan wi mu jël doléance yooyu porté ko au niveau de l' assemblée nationale solon secteur bi ak selon ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu woowu di profitoo rek tamit di ziar. Euh, sama mbokk honorable député yépp di leen ñaanal yàlla di ñaanal aussi suñu président de l'Assemblée nationale monsieur Moustapha Niass yàlla bàyyi ko suñu kanam mais di ñaanal borom réew mi muy son excellence le président Macky Sall yàlla defal ko jàmm Sénégal émergent bi mu bëgg a tabax yàlla na ko mottalil Sénégal bu prospère bi mu bëgg yàlla na ko yàlla antul di ñaan nag euh, yàlla na ko may un second mandat au soir du 24 février 2019 inshallah. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام